defal ñu xam bu baax lañu binda te téere yu sell ya nañu suñu xool jéer-jéer yi soo dee wax ak ñun amen alleluya amen alleluya amen na borom bi ànd ak yéen devan si lu Baluka Mutela binda ndam elanala borom bi ñeɓelu fan ganaaw deewu yeesu Nyar ci taalibeem ya anga Wondi di dem dëkk bu ñu tuddee emmaus digganteem ak yerusalem soreyaatuñu lu tolloo doxu ñaari waxtu doon nañu waxtaanee te déggoowuñu woon ci léppa li ñu doon wax jékki-jékki Yeesu di ca ci seen diggante te ànd ñoom waande xàmmewuñu ko woon ndege li ñu góomali woon li ñu gëlemoon mu ne leen lu ngeen doon waxtaanee ci yoon wi ak naka ngeen a mën a yogoorlu nii Kitura kiliofas neko yoreka ci wa Yerusalem yoreka nyaka ham la hewon ci fan yele Yesu ne leen du hewon ñu tontu ne lu daloon Yesu waa Nazaret bi nit kooku yoyen la woon bi wone katanam ak jëfam ya ak batam ya ci kanamu yalla ak mbooloo ma njiiti parataria ak suñuy kilifa jébale nañu ko ndax ñu aate deeyam te daaj nañu ko ca tuwaaba ñun dañu yaakaaroon ne moo waroon a musal Israël waaye ñetti fan a ngi ni le ba loola xewee ba tey wax dëgg yi jigéen yi bokk ci ñun suñu mbootaay ñooñu jommal ci fajar dem nañu ca Karmel ba te gisuñu Yeesu ñëw nañu nag yëgle si ne i malaaka feeñu na leen di wax ne Krista bi dekki na mu ngee dunda ñeena ci suñu àndaale yi dem nañu ca Karmel ba fekk fa léppa nañu ko jigéen yi nettali woon waande moom yeesu ci boppam gisuñu ko yeesu ne leen eskin ñaaka sago ñi da ngeen yii a gom la leen yónnente yëpp doon yebal moo xanaa kristo bi waroon na muñ coono yooyu ndax mu mun a dugga ca ndamam booba mu door di leen won léppa lañu ñu bindoon ca téerewu sele ya lu jëm ci Krista bi dalee ko moyi ba ca yonen ja yépp ba ñu jegañee dëkk ba fa ñu doon dem Yeesu dem mel ni ku leen di sore waaye ñu ne ko jékkil ak ñun léegi guddi na te janta bi angee soow mu duga mboog ndax def ak ñoom ba ñu denoog ñoom mu jël mbuuru barkel ko damat ko te jox leen ko boobale seen bët ubbee ko ñu xàmmee ko moom nag mu ne meles réer ci seen biir ñu wax ci seen diggante ne suñu xool feesoon na ak bànneex ba muy wax ak ñun te yoon wa di ñu faram-fàcceel téere yu sell yi ci saasi ñu jóg deelu Yerusalem fa la ñu fekka fukki apôtar yaak benn ak seeni àndandoor ñooñu ne leen waaw naam dégg borom bi dekki na feeñu na Simon Pierre ñoom ci li ñu niital li la xewoon ca yoon wa waxit wax nañu ne xàmmee nañ borom bi ba mu damatee mbuuru ma mooy mbokk yi li lee baatum yàlla la sant nañu la Christ bi alléluia alléluia Christ bi dekki na moom mi feeñal na ndamu yàlla muccu àdduna si di kana su may mbokk yi ma di leen àggale ci suñu waxtu wile mu di waraate gi am ci jataayu kaadu dunda gi jël nañ suñu téere bi ñuy jàng mu di téere Luka mu sell benn ci l'évangile yi ndax di ci seede di xew ci jamono jamono ji ñu nekk nii ci jàngu bi mu di jamono paak jamono màggal deekaleku krista bi yeesu deekaleku ga moo di lan ne moom mi deewoone woon ca biir baamel ba nekkaatu fa deekii na génn na ca baamel ba ña ko gisoon seede nañu ko ay jigéen demoon nañu ne dañoo jéem a diwi yaramam waaye la fa feeñu moo di ne krista bi nekkaatul foofa fa ñu demoon di ko seeti ci biir bàmmeelam gisuñu fa néew te mbokk yi seede gu mel ni le amul ci benn yoon ay jigéen ñoo ko njëkk a seede mari ak mari waa Magdala ba ñu ci jóge tam taalibe yi dem fekk foofu itam la leen jigéen ñi nettali woon ba ñu jógee foofu noonu ci biir néeg ba ñu tëju woon ndege ragal yaawur ya taalibe yéesu Yeesu feeñ na seen diggante ñaari yoon benn ba fa tombos néegule ñaareel ba ba tombos toog ak ñoom bi yéesu woo ko ne ko bul di gomateeti amal ngoom Thomas gestu ne ko suma yàlla ak suma borom bi yoon ci ni ñu ko déggee ci téere bi ñaar ci taalibeem ya ngi woon ci yoon yaakaar nañ ne gannaaw ñetti fan gannaaw deewu yéesu amatul dara liy xew seen yaakaar tas na seen ngoom amatuñ fuñ ko wéer jaaxle nañu joomi nañu ana Yeesu mënuñu koo gis dee na waaye ci yoon wa ñu nekkoon di dellu ndax seen dëkkale woon waaye dañu dëkk bi mu ngi tuddoon Emmaus ci dox tollu na ñaari waxtu digganteem ak Yerusalem fa taaliba yi woon waaye àgguñu ca dëkk ba téere bi wax ñu ne Yeesu dab leen ci yoon di déglu seen waxtaan di laajante ak ñoom mu laaj leen la xewoon keneen ci ñoom tontu laajati ko xanaa yow yow kenn rek a nekk ci biir dëkk bi ku yëgoo du doon xew fii ci biir dëkk bi ci biir Yerusalem bi mu gën di laaj ne leen lan la xewoon te ci seen kaadu lañ ko waxoon ne moo di ne xanaa yëguloo lu jëm ci mbiru Yeesu Krista moom mi nga xamee moom la ñu jàppee woon ni yonent ku màgg ci jëf ak ci wax toog nañu ba mënuñoo gis dara ci moom nga ba ko nit ñi ree ñu mujjee di nettali ne ay jigéen ñëw nañu feeñu leen di leen wax ne dekkale fu na mu ngee dunda noona Yeesu mi ànd ñoom di leen déglu ba tey te mujjante la ñoo wax moo di ne seen yaakaar tas na dégg ngeen yaakaaroon ne moom moo war ñëw ndax musal nitu Israël nitu Israël ca jamono jooju noonu bu ñu ko seetloo dañ nekkoon ci notel goo xam ne gi nitu Rome roman si ñoo nekkoon ci seen kaw doon seeni kilifa di leen élif moomuñu woon seen bopp ñu yaakaaroon ci Yeesu lool